Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. dale nag jàmm li gën a fës ci yéen kaay tay bokk na ci coow la am foofule ca West Africa Energy fraude fiscale ak la nga xamante ne rek moom moo di saisine de drogue ba nga xamante ni daan koy amal ak mbirum Moustapha Diakhaté ah, yéen kaay bile ah, di l'observateur ah, moom dellu siwaat ci la nga xamante ne rek moom moo ñeel mbir bi am foofule ca West Africa Energy ak la nga xamante ne rek moo tukkee ci enquête bi ak nga xamante ne rek moom moo di Abdoulaye Dia bu Sénégal ak Karim Diop bu Locafrique ñoom daan nañ leen déglu kii di Aaron Mamouna Dia am moom ñu ngi koy xaarandi àllarba fii ci Dakar ca jamono joojule ancien directeur général bu Senelec rek dinañ ko woo ca fànn woowule ki nga xamante ne nag moom moo di Samuel Sarr dañu rek daal di prolongé garde à vue ba nga xamante ni moom lañ ko defoon ngir rek ay confrontation ya nga xamante ni war nañ ko amal diggante moom ak actionnaire ya nga xamante ne rek ñoo nekk ca West Africa Énergie yéene kay bi di libération moom dellusiwaat ci quatre-vingt-quinze milliards yi nga xamante ni réew Sénégal daf at bu jot ci li nga ci secteur extractif bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Elimane na solo lool waaye la nga xamante ne rek moo modi ay sañ-sañam dafa rek am fa mu yem yéene kaay bi di la Soleil moom itam ca fànn woowule la daal di na koy fësal si lu ñeel rek ci événement fraude fiscale ak la nga xamante ne moo di fausse facturation amu dellu siwaat ci jafe-jafe ya nga xamante ne réew Sénégal mën na ko amal ci lu jëm ci fànn woowule yéeni kaay bi du Sud Quotidien moom itam ca fànn woowule la daal di addu dellu si waat ci li nga xamante ni rek ah, mu ngi toll ci cent cinquante trois millions de dollars ya nga xamante ni réewum Sénégal daf koy ñàkk at bu jot ñeel fausse facturation bu jëm ci wàllu commercial ah, loolu toll ci quatre vingt quinze virgule cinq milliards ci suñu koppar ah, yéeni kaay bi di Walf Quotidien moom dafa dellu si waat ci la nga xamante ni rek moom moo di arrestation ñuy nemmeeku jamono jile ñeel la nga xamante ni génnee ay a bu dul dëgg ak def ay mbir ya nga xamante ne rek mën naa na saxal ak kaaraange réew mi loolu nag nekk la nga xamante ne rek moom moo ay chef d'accusation yu ñu faral di gis ñu koy toppee way politique yi nekk ci biir réew mi yéeni kay bi di le quotidien moom dafa dellu siwaat ci mbirum yoon ak mbirum Adama Gaye ak Moustapha Diakhaté ma nga xamante ni ni ki démb parquet bi daan nay jël ab ndogal ki nga xamante ne nag moom moo di Moustapha Diakhaté dañ ko rek def mandat de dépôt kii di Adama a moom nag dafay wuy jiwaat foofu li ajjuma bi ñu dëgmal la yéene kay a li di vox pop ah, moom dafa dellu siwaat ah, ya ah, a àtte la ni moom moo di am mbir moomu lay ci ay nga xamante rek dinañ mi quotidien moom dellu siwaat la nga xamante ne moom di saisie drogue bu am diggante Dakar Dakar ak Kidira lu toll ci deux virgule cent quatorze tonnes cocaïne ya nga xamante jàpp nañ ko diggante mars ak novembre deux loolu nag toll ci suñu koppar ci milliards yéene kaay bile di enquête moom dafa dellu siwaat ci massacre ba amoon foofule ca caaro yi mu dellu siwaat nag ci enquête ba nga xamante war nañ koo amal ci fànn woowule muy xam ne ne diggante réécriture histoire ak mémoire ya nga xamante war nañ koo seetaat yéene kaay bile di xam ne ne boobu la taarixa ak nga xamante ne nag moom moo di Armel Mabon ak Ibrahima Thioub ñoom ànduñu ci na nga xamante ne rek moom moo di nañu xaatime boobule histoire yéene kaay bi di moom dafa dellu siwaat ci test antidopage ba nga xamante ni war nañ koo amal gannaaw combat royal diggante Modou Lo ak Siteu muy xam ne ni Modou Lo moom amal na boobule test ndax des na ci stade ba ñaari waxtu gannaaw boobule jongante waaye Siteu amul kenn ka nga xamante ne teg na ko gët foofule loolu nag tax ña nga xamante ne rek ñooy li ni mel di amal ay concertation jëmale ca fànn woowu le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain